youth entrepreneurs because they have some concerns. Now, youth entrepreneurs say Wallingra Road construction is failing their businesses. Now, Gambia Agency for uh, Public Works, that's GAMP work, current road rehabilitation along the Tabokodo Costa Road that led to the blockage of some areas has come under criticism by young entrepreneurs in Velingara who said the barrier is causing failure in his businesses. Adama Jang, owner of Others Creation, a tailoring shop at Nema Junction, said since the rehabilitation activities began in the area in June 2019, they have been hindering the uh, progress of their business. Jeng told iAfrica that uh, he is not the only one affected by the activity, but many other businesses around the area are facing the same problem. But Sirifo Singate, spokesperson of Brikama Area Council, said the rehabilitation is a GAMWORKS project which is Back and Canifing Municipal Council both paid 8% counterpart contribution to. We all understand that any development is costly the youth just have to be patient until the work is completed. Mr. Singate said if the road network is not favorable, uh, that too will be another issue, encouraging everyone to be patient with the, with the rehabilitation during the course of the work. The youth entrepreneur said the, his customers are complaining that the roof to his shop is blocked and that find it difficult to reach him saying this is causing fear to him on the progress of the business. He pleaded to the authorities to expedite uh, the rehabilitation work within a week to enable their customers access the shop. Modu Jang, one of the one of Adama's employees said he has not received any salary since June 2019 because the business has not been making income and he has a family that is depending on him. Well, Mhm. Euh, gis nga atelier baa ngi noonu ak tamit euh, borom atelier yi comme ni ngeen ko déggee ci xibaar bi mu ngi noonu di wane taal di euh, seen consaan ci li nga xamante ne mooy ci yoon yi ñoo defar ci ci kanam ci li nga xamante ne mooy. ni ñoo defaree yoon bi ñoom daal daf leen affect si seen liggéey euh, seen customers yi ñu ngi complain kon ni ñu ko waxee euh, ndax nag nee nañ since euh, June 2019 ñu ngi defar yoon bi te dañ ko block loolu tax na ah, ñi nga xamante ne mooy client am wala customer yi du am access si place am bi te ñu ngi ñu ngi complain ci loolu tamit gannaaw loolu ay Africa tamit bu ñu waxtaanee ak ñoom fexe tamit waxtaan yi nga xamante ne mooy Brikama seen spokesperson bi kooku tam mu ngi wone nag development foog mu ànd ak li nga xamante ne mooy som am cost mooy dafay métti léegoo léegi euh, du mun a feeboo ñëpp waaye mu ngi ñaan euh, ndaw ñoo ñu am pésin mooy ñoo muñ daal ba ci kanam tuuti euh, ak tamit ñeneen kenn ki nga xamante ne daal wala ku ki nga xamante ne liggéey bi affect na la nga am ci pésin ndax tamit xam nga rek développement foog mu ànd ak price te léegi léegi du nekk li nga xamante ne mooy li neex lan mooy si sa jàngat keneen kii nee na moom amul salari ba depuis juin ba léegi te moom am na ñu ñi nga xamante ne moom lañ yaakaar. Amadou man nu ma ko gisee moo nekk ne dégg la dañ war a you know build our infrastructure dañ war a build roads but also in doing that you know in enrolling uh, or rolling out our projects we should also also consider the citizenry which is very important because soo gisee xale yi ndaw yi ñi ñoom ñu ngee ñaxtu ñu nge daan seen doole mm-hmm. pour gis ne ah, ñu am dara and and all that ñu ngee gis ne the rate of you back we um, mu munge increase. Um, ñu ngi gis ndaw yi ñu ngi embark on so many things uh, risky journeys to make sure ne xam nga they have you know facilitate uh, something for their family or they give something to their family so ñoom su dee ne ñoom ñu ngi daan seen doole ñu ñëw only Ngurbi Purmu discourage them by doing um, certain activities that would hinder their development. I think that is uncalled for. waaye tamit uh, comme nuñ ko waxee rek gars dañ war a patient waaye man dama tegoon ne sax dis Nema um, Nema Junction uh, Latrikunda road boobu noonu dafa pare woon because dañ ko dem ba ubbi ko so ndekete pare wut I think ne like they should do one thing at a time waaye nara tëj ñaari yoon yi yëpp um, Costa Road Tabokoto highway bi Nema Johnson be Latrikunda New Roof bi tamit ñu nara tëj boobu noonu at the same time dafa dina métti te dafa hinder the businesses and of course affect other people too because ñi ñee dañ war a dem liggéey ñi ñee dañ war a dem doxi ji yeneen soxla waaye su dee ne dañ ti ñaari yoon yi yëpp at a go loolu dafa nekk loo xam ne like dafa it will be very difficult for the people not only these youngsters dégg la moom moo ñëw nag di he is affected but I am sure and not only him so many other people are affected so leader government bi dañ war Um, you know ñu xoolaat seen décision bi you know at least ñu jël beneen uh, ñu ñu jëlaal beneen euh, yoon bi euh, ñu ñëwa su dee ne dañoo jël beneen yoon bi because ñun sax suñoo liggéey si dañoo li instead of man ma wàcce fii Neema Johnson fale laa dee wàcce si beneen Johnson bi koof you know Eye Africa TV exactly ñun ah, tamit daf ñu laal <laughs> so daf ñu laal so soo gisee loolu noonu yëpp I think ne government dañu war a come up with uh, measures loo xam ne like du affect ni ñi tamit dégg la development dafa important road bi pour rehabilitation bi is uh, something that is called for It's important, it's a, it's a good move, but whilst doing that also, government should really look at also the interest of you know Gambians uh, ñu ubbi beneen beneen bi ñu tëj ko beneen su paree ñu tëj beneen bi ñu ubbi beneen bi hmm. but nara tëj ñaari yoon yëpp loolu dafa nekk loo xam ne dafa andi yeneen jafe-jafe si Ehm, waaw su ko defee loolu lu lu am solo la ehm, dafa indi jafe-jafe comme noo ko waxee of course te xam naa nag buñ baralee liggéey bi mooy ñu gaawtu ko comme ehm, ñi nga xamante ne mooy you know ñëwkat yooyu nuñ ko waxee foog naa ne dafay am solo euh, su ko defee euh, loolu moo jeexal suñ studio story si waaye am yaakaar rek ne euh, ñi nga xamante ne mooy kilifa yi nañ ci bàyyi xel waaye tamit développement foog mu ànd ak cost comme PRO bu Brikama nu mu ko waxee léegi léegi bëgg nañ ñu defar yoon yi bëgg nañu tali baax bëgg nañu développement ak yooyu su fekkee tamit yooyu yëpp dana am léegi léegi foog am ñenn ñi nga xamante ne foog rek jëf yi métti seen kaw mm-hmm. ah, julde a yomba ah, wax nga ne léegi léegi bari dañoo dox bu baax because yoon yëpp ñu ngi ko block ak yooyu moto du ñu ñëw ba jege waaye yooyu yëpp xam naa bu ñu gaawale liggéey bi dafay am solo defee